ñoo war a sëy xam ne caaxaanuñ man takk naa jabar joo xam ne. dim sëy see. ma dem Touba ñeenti fan ñaari fan ma ñëw. mu takki bagasam buub néeg bi yep ñibbi salaam mom di wax aaw bi nako ki li tax nga ko jantal mara ma ko mi ngi bëgg soxor de foku <laughs> lu ko gore bi di wax bu koy wax ba non c'est que yow xam nga sans vouloir mais nañ wax problème yi nek ci biir sey yi ak goro yu goro yi seen yoon neeku ci xalé yu ñoo seyul wa non sa yu ñoo sëyul de yow déggoo li ma la wax sànq de jantal bi la daa dama la wax ne la mais ko amul fanweeri ak koku lu ko goro bi ku amagul fanweeri at fase juróom-ñaari jabar. waaw laaj ko premier mariage am. te nee nga te nee nga am na buy kanam la gi. waaw mais soo waree juróom-ñaari fas bu ne nga daanu ca da ngay changé fas. xaaral ma wax la. parce que xam nga la la jàpp si biir euh, maa ngi soog a gëm ne nag li ci góor di ci jigéen. gis nga li mu wax ni bu fekkoon man Sophie Gueye maa ko wax. waaw àdduna tukki na mais àdduna tukki na non Sophie non su ma toogoon ci télé bi ne man sëy naa juróom-ñaari yoon. mais mais eh, mais mais ah góor ak jigéen non dëgg dëgg na mais lii ah. normal mais lii normal waaw premier mariage am laa bëgg nga laaj ko kañ la woon. non man dama bëgg xam. Ah, yéen na ma man. Sénégal man fi mu ne li tax nga xam ne goro yi defuñu dara ñun ñooy génn xale yi ñun la ñuy gis. te koo yóbbul sa yaay ak mbëggee la tax mu ne da koy téye ku sa waa kër téewul nag moom geneen kër gu la téye nga baal ma loolu jëfi lan la. téléphone bi dimbal leen ma si s'il vous plaît. xam nga man bi ci su ma déggee sa biir wax. li ma bëgg a wax lépp pare <laughs> non li nga bëgg a wax yëpp boo ko waxee plateau bi toj. waaw yow fi mu ne wax nga li ngay wax ba pare. waaw ne fooy mujjee. pare bu ma de xam nga fooy mujjee waaw. Pros bul bul bul bul bul kii sama invité wax ak say wax rek te bul. bul <laughs> bul kii sama invité daal bàyyi ko ci jàmm. mais fooy mujjee te li garaaw mooy tàmbalee gu ma. ah. ah waaw déet déet. tàmbalee gu ma de. dëgg la ah, waaw li nga bëgg daal doo ko téye. du ma baax. nit bu takke ba takke fo lol fu ma ba yow jantal Mara bañ la wax. nga gertu gis temps yi te ginnaaw di ra waaw yaakaar ne moo tax ku togn nga ne ko wuy ba non non mais na doon benn affaire gis nga kilifa yu beuri kilifa yu beuri dañuy beuri ay sox parce que toy parce que jigen jigéen ne neexuñu tee. wa prospère ba na ben affaire. wa wax ma xam nga togn gi ci biir goro yi. ku ñëpp tifli daal dama na la man ku saaga sama wayjur ma fasela la. waaw am nga. c'est normal duma fotul ma fasela non bobu ku dem sa kër duma la jëli. Ah. ku bu ma ñëw takk la nga jàpp ne damaa ñàkk tama yor bu ma demee ba xam ne lii la fi indi ma fase la bu ma xamee ne cheveux naturel nga ma toppee ma fase la bu ma xamee ne bëggoo ma te yàlla tax ma fase la xëy na danaa gis koo xam ne dana ma bëgg ci nii ma mel ma dund ak yow loo xam ne mbëggeel lay doon te yàlla rek tax waa sëñ Mara sa sept fase yi si ñaata temps la moom bariwul de ay xam naa ay 2012 <laughs> ak léegi ñaata temps la dix